max bi max coach la ndax euh, ndax ni ma gisee max bi départ dañoo teel a défendre max nekkul like loo xam ne da ngay da ngay da ngay da jël défense ba mu ëpp da ñëw da nga war a ñëw pour gagner waroo ñëw pour défense ba noppi Aliou Cissé lan mooy problème ba Pathé Cissé mun ta départ am nga ay booy yoo xam ne ñu ngi compétition booy yu efficace départ la booy ku ci mel ni Pape Matar Sarr am nga Pathé Cissé am nga Pape Gueye ay Cheikhou Kouyaté gànn Gueye dëgg la ay joueurs lañ mais booy booy nañ jox booy seen chance quoi may booy ñu départ waaw euh, match bi xam naa ni Sénégal yëpp fi ne nii moom xaw na ñëw liw loolu moom lu nekk la mais li ma ci bëgg a wax mooy am jàngat dañ ci war a jàngatee am na kuy wax ni réussite mi ngi tàmbalee ci lu àdduna bi yëpp di bëgg a def nga bokk ci ñu koy def man pour man y a déjà une réussite le fait que Sénégal participe ci tournoi bu mag bu mel nii ci juróom fukki réew ak nang nangam yi nekk Afrique Sénégal bokk ci juróom yi ci bokk ci fanweeri équipe yi nga xam ne àdduna bi yëpp ci bëgg a dem mu bokk ci ñi ci bokk ñu doon football ak équipe boo xam ne nag ñoom ñoo recréer le football ñoo ko recréer waat encore ñoo inventé réinventé le football muy Hollande donc euh, Hollande gagné ñu kooku du gàcce et seetaan naa match bi les garçons n'ont pas démérité jàpp naa ni poule bi match bi moo nekkoon match bi ci gënoon a métti mooy bi ci waroon a gën a métti donc le fait que ñu perte match bi ne va pas Euh, dañuy dañuy éliminer des premiers tours parce que gis naa ni ñaari équipe yi ci des ñoom Sénégal bu góorgóorloo tuuti rek et puis c'est une c'est un lion blessé gëm naa ni bu ñu bu ñu dalloo xippaat xool jàngat xam ni nag équipe bi ñu doon daajal moo ñu mën mooy dëgg donte xale yi amoon nañ taxawaay bu jekk ci biir terrain bi football nañ lu rafet loo xam ne ñëpp àdduna bi xam nañ ñun am nañu football xam nga mais équipe bi tamit blessure bi mu am ci manque de participation Sadio Mané am na lu mu ci indi bon bari na lu ñu ci mën a jàngate day mais man li ma ci gis mooy maanaam sénégalais war ñoo xam ni bokk nañ tey ci réew yi nga xam ni li ëpp doole ci àdduna bi li ñëpp di seetaan ñun ñu ngi fa te bokkoon nañ ci bi ñëpp doon xaar ci àdduna bi et ñoo am ci taxawaay bu jekk match bi football nañ nag football nañ carrément nag moom quatre-vingt vingt quatrième minute euh, bii bi am par erreur laay wax sax parce que erreur erreur d'inattention la mm-hmm. loolu dem ci football mm-hmm. te gars yi xam ne lii ger la guerre lañ dem mm-hmm. donc euh, perdre nañ benn bataille te tamit nañ jàngale nañ si jàngee dara. Mm-hmm. Sénégal coupe du monde yu si ëpp premier match am mm-hmm. kon nag bu ñu tàmbalee ak défaite. métti mm-hmm. na nag ba ci xol li ñu quoi parce que man 1h laa gisoon xam na ba léegi nag sama gëm-gëm mi ngi dem. Ah, donc li ci li ci kanam gars yi nañ gën a yokk confiance nañ gën a gars yi yokk leen confiance te te te dundee yaakaar ndax yàllaa fi ne. donc perdre nañ premier match bi te football nañ match bi ñëpp xam nañ am nañ équipe ak ak blessure yi. am na ay blessures tamit yoo xam ne ci biir terrain bi te loolu ku dem ci xare am perte say say say say say pion yi nga xam ne capital la donc c'est euh, du ñàkk nga nga nga ñàkk marché bi donc. Mm-hmm. loolu mun si ñàkk xëy na peut loolu moo tax ñu ñàkk marché bi. Mm-hmm. donc yi si des dañ ko jël marche par marche waaw bu ñu ci génnee ci poule bi incha allah te day am final bi ba léegi ñoo ko jël man gëm na am naa gëm-gëm bi. Mm-hmm. waaw gëm-gëm bi moom boobu moom dañ tànk néew ñu ma Sénégal toog na. tey moom football nañ vraiment. ñëpp kontaan nañ. mais problème bi mooy xam nga daa mu des rek moom bu ñu jox dugal a tax comme dugal mënul am nag ñoo dugal ñu gañe nañ loolu kese la mën na nekk ak ñoo mën gañe rek du dara après ñu jéem a xoolaat beneen ndax nga gisee classement bi Aliou Cissé def non baax na lépp jàmm xam nga football moom bu la gañee ci ngay ci fay bari ci lay génn ci la ñaan ñi xamuñu dara ñu def nañu mais wax dëgg yàlla li mu teg dara nekku si dara nekku si gañe ñëw ñu gañe ñu rek waaw te booy ay jàmbaar lañu wax dëgg yàlla indi leen sant yàlla bu baax a baax a baax li des mooy yeneen match yi nañ ñaan tamit au début mais na yàlla moo dikk ak nañ confiance trop trop en plus bi xam ne dañu am ay manquant yu bëree bëri mais nag incha allah day ñëw ñaari match yi nañ si yaakaar baax a baax parce que ñun Sénégal nii la premièrement buñ ko perdee am nañ yaakaar deuxième ñaari match yi nga xamante ni si moo si des ñu mën koo gagné incha allahu rabi. ah match bi mënoo koo seere ba dernière minute nga jël 1-0 ba dernière minute 2 secondes nga jëlaat deuxième bi. so ba noppi changement yi ni ñun ñun ñooy changement yi am nañ booy Pape Matar Sarr boo ko gisee xam ne booy bi eh, mi nga xool Pape Gueye nga xool Pathé Cissé xam ne boo nga xam ne joueurs yooyu noonu leen mën a amee di leen teg ci ma football xale quoi. Mhm. football xale loolu laa gis quoi. boo xoolee moom ni mu débuté nii moom en tant que waaw ku nga xam ne da ngay analyser mu mat football moom ni mu débuté moom wax dëgg yàlla suñu xel dalu ci quoi dalu ci franchement peut-être nag mën na dem ba si biir mu am ay changement yoo xamante ni si. dina tax ñu gën a amaat confiance quoi ñuy ñaan daal suñ deuxième match bi ñu am ci ndam boo xam ne dinañu mayaat courage pour ñu xalaat ni dinañ gagné suñu match yi ci topp daal. Ah. kon daal gis ngeen ne absence su Mané. Euh, waaw posé na ci terrain bu doon bi gagné nañ ko bi yàgg. bu doon Mané miy football match bi ci une minute euh, ci premier quinze minutes bi ñu commencé dominer dañuy dugal. xam nga parce que boo xoolee suñu flanc yi baax na mais dafa manqué explosion quoi booy nañ def mais ñoom dañuy football pas pour dugal. te bu dee maane la quand il lay gis donc dafa loolu moo ñu manqué attaquant de pointe yi duñ dugal dañuy jëm a xool xam fu ñuy raket pour mën a dem alors bu dee maane lay porté balle bi dem dem dem dugal yi loolu loolu loolu moo ñu manqué te. j'espère que ne prochain match Aliou Cissé dina ko rectifier. ñun ñëpp jàpp nañu ne Abdou ñëw nekk ak ak ak ak comme euh, Koulibaly tey bu fekkee changé na diggante boobu tamit blessure yi nga xam ne moom moo fi am moo tax même attaque bi tamit tey Sadio Mané mi xam ne blessé na tamit moom moo gën a jaxase attaque bi xam nga noonu la mën a demee daal noonu la mën a demee. moom tamit muy déglu nit ñi commentaire yi ñu def quoi parce que tamit ñun. dëgg la moom la yàlla jiital si bopp bi quoi mais am na ay techniciens yu nekk ci ginnaaw yoo xamante ni tey des fois ñu gis faa yoo xam ne du ko gis quoi. xanaa ñu góorgóorlu rek gën a yokkaat vitesse bi mais fi ñu ni mu baaxul moom instant yii moom kontaan nañu moom. leen di ñaanal nag après ñu dem ci kanam mais fi ñu ni moom baaxul de lu bëree bëri. waaw te suñu booy bi indi ñu ko quoi ko tegal nañu tegal Elimane Ndiaye waaw mais ay Bamba yi nañu football nag mais instant dañoo des dañuy xaar voilà Aliou Cissé message bu ma am pour jox ko mooy message bu sénégalais yëpp xam xam nga Sénégal dafa nekk équipe boo xam ni bu ñu perte ñëpp ay coach la ñuy doon saa yi ñu perte match rek ñëpp kenn kon da ngay jóg naan bu defoon lii bu defoon laa bu defoon laa mais nii la ñu démarré woon ci coupe d' afrique bi coupe d' afrique boo xoolee équipe yi njëkk a match nii la ay Guinée yu kenn xamul dañoo match nii la ñoom xawoon nañoo sax gagné daanaka mais finalement après mu xippiwaat defaat leen donc man am naa lu may wax mais amul lu ma koy wax parce que moo xam ne li mu war a def. Mhm. gëm naa dinañ am beneen taxawaay daal ci yeneen jongante yi di ñëw. loolu la loolu la mhm. yaakaar. ban message nga am pour Lions yi gannaaw bi nga defar Aliou pour Lions yi. waaw mais ma xamal leen ni ah, du gàcce football ak Hollande mu gañe la ci équipe bu africain di Sénégal du gàcce waaw parce que euh, ñoom ay footballeur lañ ñoom ak ñoom ñoo bokk fu ñuy football ci seen championnat européen yi. boo xoolee sax daanaka Hollande joueur boo jël tactiquement ak joueur sénégalais ñoo ñu gën a cherle loolu mooy li am moo ñoo leen gën a cher ak Payar ñoo leen ñoo nekkandoo ci club yu baax yi et maanaam maanaam mooy daal maanaam démérité wuñu gañe nañ leen nañu continuer jël courage bu mat sax xam ni Sénégalais yëpp a ngi ci seen ginnaaw. support nekk ci ginnaaw gaynde yi jàppale leen te xam ni affaire yi bu yoon jeex sur yoon si du jeex beneen bi mooy. man damay dem Qatar damay dem seetaani deuxième match bi. Mhm. waaw foofu laay damay seetaani deuxième match bi incha allahu rabbi pour pour support gaynde rek. may ñaanal senegal nag bu ñu am benn defet rek ñëpp àndandoo ñu et fi ma bëgg a taxaw mooy charlatan su la euh, Seydina. Mhm. mais charlatan yi nekk Sénégal mais sëñ bi kañ la ñuy wax ci ñoom. mais charlatan yi di génn kenn ku ne naan kii dina kii mais loolu xam naa émission la laaj mais ñooñu sax mën naa tax sax yàlla dogal duñu duñ gañe mais c'est menteur là c'est c'est menteur là c'est marabu menteur là mais gars yi nañ ci wax nañ ci jël dara ñu taxaw ci kenn ku ne génn naan kii kii kii kii kii mel ni réew moo xam ne nit ñi gëmatuñu yàlla mm-hmm. wala xam nañ ko mel na wóoluwuñu ko mais li moo tax sax ñuy perte yu ne mel mm-hmm. yee yéeme na